yi compagnie Serigne Sénégal c moo ñëwaat ak yéen ci jongante bi mu baaxoo amal at mu nekk tuddee ko yaatal mbindum alxuraan ren di ñeenteel bi édition ku ci bëgg a bokk da ngay bind lu tollu xët ci alxuraan bind sa tur sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci butigu c bi la gën a jege ci Sénégal wala fépp foo xam ne raabita bi wala fédération bi ëmb jàngalekatu alxuraan yi ci Sénégal am na fa dépôt candidature yi di mbind bi dina jagleel ko région yi di Matam Tambacounda Ziguinchor Kolda Sédhiou ak Kédougou ngir gën a suqali mbind mi ci gox yooyu le ñett ñi jiitu ci concours national bi dinañu am neexal yu am solo yu ñu leen jagleel premier bi dina am 6 millions deuxième bi 5 millions 500 troisième bi 5 millions kuréel bi saytu concours bi mu ngi fàttali candidat yépp ne ku ci nekk benn dépôt la war a def ak foo ko mën di defee ci biir réew mi kayit wi ngay déposé it yaa ko war a bindal sa bopp ku ci bëgg yeneen i leeral wooteel 76 751 43 42

beneen ci actualité de la semaine bokk na ci euh, l'affaire des centres de redressement euh, récemment nekk actualité yi bokk na ci Serigne Modou Kara Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni euh, loolee nag nekk loo xamante ni la ko sooke mooy ab gëstu ak liggéey boo xam ne waa gendarmerie ñu ngi ko doon def ba découvrir également ces centres au niveau de Ouakam et par ailleurs dans d'autres zones ici à Dakar mu nekk loo xamante ni temps yi nekk na lu marqué la semaine waaye lu ci man de am nag ñu dem ci ak euh, analyse bu objectif wala bokk ko dem ci ak daal ak xel te xam ni euh, mbir la moo xamante ni c'est trop sensible donte c'est l'État qui a donc euh, les missions régaliennes également qui qui a le garant de notre sécurité également tey jàpp naa ne am na nu ñu ci waxee rek danañ xaw a jaxase l'homme religieux ak l'homme politique ak l'État mais ma jàpp ne aussi peut-être que souvent yu mel noonu am na ci lu war a lalu ci biir Euh, ma jàpp na xëy na yenn centre yi également ñi koy def euh, war nañu mën a am yenn euh, li di ay permission am yenn sañ-sañ yi nga xamante ni dina bànqaasoo ci ministère bi gàllee wàllum kaaraange bi réew mi ndax it ñoom am nañ fi ñu toll daraja bi ñu am boo xamante nii Euh, dana leen may yenn saa ñu am yenn sécurité yu derrière eux euh, pour euh, quand même seen kaaraange bopp ak seen sécurité ma jàpp ne loolu aussi état daf koy nangu dama koy nangulee yeneen centre ndax ku nekk xam ne ni boo demee si associa société yu mag yi des entreprises dañu am ay sécurité yoo xam ne leen di daal dañu am ay boîte de sécurité mais loolu aussi dañ koy nekk loo xam ne c'est l'État qui donne cette cette autorisation ma jàpp ne kon mbir moom bu amee ñu ne am na ñu fa doon yar ñu ne doon redressé les gens parlent également de ces images qui datent de yeneen yàgg na mais lu ci maanaam pour man xëy na mbir mi euh, tëbul tëb rek euh, xëy na am sañ-sañ samp ko noonu bu dee da koo def itamit xëy na am na lu tax mu def ko mais lu ci maanaam mooy ndey mbir ji moom Serigne Modou Kara yëkkati na ay kàddu donte il a longuement gardé son silence et il sorti de sa de, de son mutisme pour quand même wax ak sénégalais yi wax ne nag du yàgg sax na wax sortie médiatique def ci ay ay kàddu euh, def ci sortie médiatique mais lu ci mën a mooy sëñ Modou Kara moom xam naa ni euh, am na Euh, taxawaay boo xamante ni nitu diine la boo xamante ni fi mu bokk ak euh, li muy woowe tey di généralu Bamba du def lenn loo xamante ni xëy na dina ñagasal li indi fitna ci réew mi ndax ku nekk xam ne ne euh, nit ñu bëri ñoo topp seen ginnaaw te booy xool ñu ci bëri am na ci yoon yu ñuy jaaral nara na nara naxsaay mais gis nañ defar gi xam ne am na ci ñoom xëy na bu dee ay correction yooyu am na ci centre yi peut-être mën nañ ko réorganiser xolaat nañ lañ koy jubbante comme moom il a également excusé devant tout le il a présenté ses pardons euh, ses excuses devant tout le monde devant les Sénégalais euh, di jégalu tamit di sàkk bu baax ci képp koo xamante ni soxla nga genre kaaraange yu mel noonu nga dem ba ci ministère de l'intérieur pour am autorisation bi kon sotti boobu sotti bu ñu rafetlu la moo tax wax ci jëruñu ci sori ndax kii ndey mbi di ji wax na ci euh, lu ci mën a am mooy ñu bañ cee dem ak xol ak xëtër ñu dem ci ak xel analyser ci de façon objective lu ci mën di am mooy euh, yoon mi ngi def liggéeyam ci ñu ngi ci teg loxo moom wax na fu mu ci taxawee lu ci mën di am ñu bàyyi li ci li ci kanam raw di gat lu ci mën di am daal mooy nañ fexe ba dal am ci parce que le temporel ak le religieux mosuñoo réeroo te dañoo war a ko ko dañoo war a ko habité dëkkandoo dëkkandoo bu neex ndax kii ci homme politique bi ñekk ko fa teg ay nit la yoo xam ne ci homme religieux bi la ñu sukk jébbalu kon le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel doivent quand même